saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Xaadim Gajaga président écurie Rock Énergie ci àddu ga mu àddu ci combat Modou Lo Ama Baldé mbiri Luc Nicolaï Xaadim Gajaga persiste et signe ba xamle Modou Lo Ama Baldé nekk ay kàddoom combat Modou Lo Ama mooy combat bi am nag je donne rendez-vous le 26 juillet 2020 di bés bi combat bi nar a am président Xaadim Gajaga combat bu ñu matérialisé nga ne dana am 2020 ñuy wax nga joxe le 26 ne du ko weesu mu ne maa ko waxte dama koy dëggal le combat sera matérialisé sous peu le combat Modou bel et bien Enco structure bu ñu organiser la ba noppi mu signé ak ay partenaire am am ay nit ñu responsable ñu mën seen liggéey structure boobee moo taxawal combat bi jox Ama Baldé avance am te Modou Lo léegi mu jot wàllam Modou Lo laalagul xaalisu Luc Nicolaï waaye ñoom ñaar xaalis boolewu leen waxtaan nañu ba d'accord ci ay kàddu loolu mooy mbir ma taxaw na te dootul yàggati tuuti Luc Nicolaï jox Modou Lo avance am Ama Baldé kay na nekk ci ay entraînement am te xam Lo moom pare na bu yàgg bu loolu weesoo kay ñu bëgg Luc Nicolaï génn Abdoulaye la buy jàppale lamb te buñ ko tëjee lamb dana sooxe waaye man président Khadim Gadiaga li may dalalee xelu amateur mooy ndogal gi dal Luc Nicolaï du yàq dara ci combat Modou Lo Ama bëgg mu am mooy diggante Diène Kaïré ak Moussa Ndoye ma doon laaj amateur ndax combat Diène Kaïré Moussa jaadu na amateur yépp lañ ko tontu mooy waaw diggante lakkantaan bu sumbe nag Lion bu yaraax loolu dara du ko dàq ca réaction yi Diène na bu keneen ñëwee baax na Moussa Ndoye ne ko man damaa ñëwut ndax yaraax bëggut Diène Kairé waaye yaraax di samay mbokk di samay supporter kenn bëggu ci Diène Kairé comme adversaire ñun Sa Thiès la ñu bëgg na ñëw ñu bëre Baba Diaw mooy promoteur ba mu déggee mbir man daane Moussa Dioum ak Diène Kairé bu ñu noppee tey tey ma jox leen avance boobu combat bu amee dana neex ba àgg ci loolu Père Bekaay Mbaye la mu bëgg bu amee moom it dana ko gënal lool exclusion de Papa Sow de Fass Père Bekaay Mbaye entame une médiation Père mooy jubalee Papa Sow ak moom ba mu déggee dàqu Papa Sow le génn dafa jël téléphone am woo Abass Ndoye président Fass la woo ngir régler mbir ma ca a gaawee na ci li sooxe làmb ji li tax ma la papaam def na ngi ci di négocier te yàlla mën naa dogal Papa delluwaat Fass Papa ne ca tonn ne man xaw ma lan mooy xew waaye du man maay tàllal waa Fass loxo naan leen baal leen ma àq je pas demander pardon loolee la Papa xamle depuis ñu dàq ko Fass ba léegi moom Papa génnut waxut kenn xamul position waaye démb ca open press Tapha Mbeur la génne ay dëggam teg ci table bi je pas demander pardon aux dirigeants de Fass man Papa Sow jéggalu kenn ñaareel ba mooy dañ maa accusé moo tax bëgguma mbir mi ñu réglé ko diggante Papa ak Fass jeex na jeex na bu ñu jàllee ca diggante Tapha Mbeur ak Alioune Seye Junior foofee dernier tournir baa fa des combat bañ doon waaj ay weer ay fana ca des Alioune Seye Junior def na open press am talaata di xaar le 29 Tapha Mbeur démb ci àllarba ji la doon mbër yu ci défaite lañu a génn ci saaku yi bile le frappe onzième journée Adrien Senghor général Malika survole son premier tournoi de la saison moom général Malika ba saison bi ubbeeg léegi Adrien Senghor la ngi toll ci onzième journée terrain gaal gi toll ci ñett wala ñeenti journée moom mu ngi door a jël final démb ci Adrien Senghor fanweeri mbër ak ñett nga fa woon ca fanweeri mbër ak ñett yooyu ñu àgg ca carré d'as ba mën nañ caa jàpp Saliou Ngom Moussa Ndiaye Bambey général Malika ak Oter Dior 2 Saliou Ngom ak général Malika ñoo mujjee finalu bëree bëree bu neex Saliou Ngom wër di dallu ba général wëlbatikuwaat foofee la ko ko ca suuf mbir ma jeex jërë ngeen jëf mbokk li ma nekkoon li gën a fës ci tu bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah